My dreams, I make my way to Madina. Mooy bërëb yonen bu bëgg suñu biir xool Madina kep kuy jullit yaa ngi ñaan yek ba Medine su fa ñaan heye Muhammad Madina Madina Madinatu Nabi Medina, Medina, that's where I wanna be. Medina, Medina, Medina to Nabi, Medina, Medina, that's where I wanna be. Oh, oh, oh, Medina, Medina, oh, oh, oh. Madinah Madinah ta'al badru alaina min syaniyati wada wajaba syukru alaina mada alina ida ayyuhal mabusufina Jita bil amrin muta Jita syaraf tal madinah Marhaban ya khairadan Heye Muhammad Madinah Madinah Madinah Nabi Madinah Medina, that's where I wanna be. Medina, Medina, Medina to Nabi. Medina, Medina, that's where I wanna be. Oh, oh, oh, Medina, Medina, oh, oh, oh. Madinah Madinah talal badru alaina min syaniyati wada wajaba syukru alaina mada alina ida ayyuhal mabu'usufina Jita bil amrin muta Jita syaraf tal Madinah Marhaban ya khairada Assalamualaikum kan Diallo tay dañu ñëwoon fi ci sa ndogu bi ñu bëggoon nga wax ñu sa initiative bi lan nga ci jublu woon waaw ñaké ginnaw buma len nuyo di am contentement le fait que ngeen déplacer wu daal di ñëw maa ngi leen di béggee bu baax di kontaan ci mbokk sénégalais yépp képp ku ñu suivre ma ngi lay nuyu di les siyaar bu baax waaw tey nak dañ doon organiser ben ndog bu spécial fii nii Parcelles Assainies parcelle nak sama dëkk la fi la dëkk fi la yaro fi la maggé fi la défé sama lépp waral nak bon euh, ñu jël ben choix def fi ndog bo xamné euh, je serai accompagné par Vibe Radio daanaka ñoom ñoo def lépp Vibe Radio ak Multi kafe ak Fans Club Welma man defuma ci dara dara dara man dama je me suis juste engagé et ñoom ñu ñëw fekk ma ci affaire bi gën a nice vraiment mu nekk loo xam ne ça me va droit au cœur sincèrement waaw. bii mooy première édition ngay def ndogu bi. non non bii mooy deuxième édition dem euh, daaw dañ ko defoon affaire bi réussir tellement mu jaaxal nit ren ñu ne dañ koy dolliwaat. et eh, gis ngeen numu mu machallah c'était allah extraordinaire machallah allah ñëpp juggé fu né fans yi juggé fu né ah samay am di jamm juggé fu né ku ci nekk tamit di ci def sa xaalis def sa lepp def ci sa ñak donc voilà alhamdulilah. yo en tant que artiste pour yow lan li ni lan lay soxal nga xamné nit ñi dañu wara di jappalé néw du doolé yow en tant que artiste lan nga si xalaat. non même bo nekul artiste sax lool dang ko wara pour man. lii daf la war boo ko mënee euh, même boo ko mënulee sax war nga mën a jéem pour def ko parce que euh, weer wi weer bu sell la weeru promotion la weer la boo xam ne lépp loo ci def ah su ko yàlla nangoo de wallaahi azim ah doo ko réccu mukk donc ñun man damay jéem rek waaw damay jéem rek di def loo xam ne tamit euh, lu baax rek waaw parce que ñun dañoo judd xam lu baax màggee ci lu baax xam nga yaroo ci lu baax. à chaque fois nous ngi def euh, raison pour laquelle ñu dañuy initiative chaque année ñuy def genre yi xam nga euh, est-ce que parce que dañuy gis dañuy di orphelinat prison est-ce que une édition yi xalat nga ko parcelle bi mais bien sûr dama koy def wallahi zim bien fu prison prison. Euh, Euh, camp pénal ren sax bëggoon naa fa def euh, soirée may leen soirée wala may leen benn genre concert mais malheureusement mujjul mujjul am mais loolu nekk na suma xel dinaa ko mës a def euh, orphelinat bu nekk Medina mës naa fa dem benn yoon mais dina organiser waat beneen boo xam ne incha allahu dinaa invité presse bi invité ñëpp yóbbu fa lu lu lu rëy incha allahu soobee yàlla suñu borom ak feneen ak feneen ak feneen def lu baax moom. pour man boo koy def ça doit être naturellement xam nga man yàgg naa ko def te kenn yëgul donc euh, voilà alhamdulilah. Hmm. yes salaamaaleykum salaamaaleykum euh, ñu ngi nuyu di kontaan si waa si waa Wanema déjà si déplacement bi ku ne xam na ni jot amul et que weeru koor dafa xat waaye ngeen bàyyi yitteeb ñëw ñu ngi leen di sant di leen gërëm. wa initiative bi nak euh, duñu def lu dul rafetlu ko ndax euh, suma jumul bi moy deuxième édition ñu koy def ñu ngi ñaan yalla nak wax deug yalla ñu def at bu nek ah, ñepp di téwé muy gën di mag euh, comme niko sama xarit waxé taala ñu dem bay yew ay ay ay nag ak ay xarak diko diko diko diko di nit ñi ndax bi mom comme comme on dit rek promotion la boo si defee benn yàlla fay la fukk kon moo tax ñuy jéem suñu kéemtalaay kàttan euh, di jéem a euh, joxe ndogu wala joxe nit mu lekk wala joxe nit mu mu dog kooram euh, ngir rek sàkku si ay yiw bu weesoo loolu nag vraiment ñi ngi gërëm ñi ngi si àndal ñëpp ah di gërëm waa Welma waa Welma yëpp ñu ngi leen di gërëm ndax wax dëgg yàlla ñoom ñëpp bàyyi nañ seen yite ñëw ñi ngi gërëm waa Vibe Ah, di gërëm euh, multi kafe di gërëm ñëpp ñi jàpp si affaire yi wax dëgg yàlla et wane ma aussi ñu ngi leen di ñaanal euh, bu déwénee heure bi déwén yàlla na fekk mu doon tele bu ñuy tudd fu sore sore sore sore sore ah, ci barke yonent yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def euh, waaw kàddu yi daal defe naa loolu la woon ah ñu ngi gërëmaat ñëpp ñu ngi gërëmaat waa Welma bu baax Euh, bu ñu limee jum lu ko dalee si kaw ba si suuf lu ko dalee si prési ba ki si gën ndaw ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp ah, di gërëm euh, encore une fois Vibe kafe wane Wanema TV. salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa adduna salaamaaleykum waa Afrique salaamaaleykum monde bi di wax ni nag xanaa dañuy waxati rek comme fekkee nañu ko rek di ñaan yàlla fekkee ko déwén yu bari. di wax ni ki def ndogu li domo doomu parcelle la waye nak doomu aduna la parce que parcel rek béggeewuñu ko aduna koy béggee macha allah muy sunu frère di suñu xarit di suñu doomu nday di suñu di suñu genn wal muy kan muy kan jallo welma kooku aladju mbas ñong lañuy woy bayam mbok yaayum Seydou ak Baba Mal Amadou An duma ko fàtte son mi ngi ci wet waaye nag di wax ni waa Wélma lii ngeen def ni tey dafa rëy parce que defaloo leen ko kan jàll ñun ngeen ko defal parce que kan lu ko waay defal jàppal ni defaloo ko ko moom kase parce que kan du moom kase kan dafa ànd ak équipe bu am doole muy waa Wélma ndax benn lam du yëngatu sa maam daana wax ni boo jëlee bale takk ko ba mu dëgër këcc soo ko bëggee damm day miti mais boo ko dindee pour nga damm ko par benn benn day yombu loolu boko ko mom la olof yi di wax ni bolo bokku nday ak bay lu ko way ci aduna jarnako kon kan jallu linga nga def ni tay and ci ak wa Vibe rajo macha allah nañ ko yu bari dem ba diko def di tek ay mbanay mbanay mbana di ray ay nagi nagi nak di togg ay mbanay bari diko servi doomu adama yi di len ko jox ñuy xewlu parce que li amna solo parce que nenañu ku wor ba nga dag tandarma jox ko mu dog mi ngi melni nga tabax jaka kon yaakaar naa ne ñun tey li ñu tabax ci ay jàkk kenn xamul nu mu toll yaakaar naa ne tabax nañ addunay jàkka parce que koor gi yëpp presque dañ ko joxe ay ndogu kon kan jàllo lii nga def ni tey ànd ceeg ak waa Welma macha allah am na solo yaatu na xéewale na fii ñu ko defee barki Dembo Ndiaye lañ fi def ndogu lu yaatu kon yow it boo ñëwaatee sampat ko fii dina gën a am solo di gërëm tamit waa site internet bi nga xam ne ñoo fi ñëw. di jël affaire yi macha allah télé bi yàlla dem ba mel ni TFM ndax lii ngeen def nii am na solo ndax da ngeen a bokk ci li jàllale kaaraange réew mi kan nag moom dañ koy bàyyi ak yàlla parce que tey moom bu ko neexoon mu dem wuti yeneen i yeneen i musiciens liggéey ak ñoom mais lépp ci biir parcelle la xewee fii ndax ñun la ak moom. papaam ak sunuy papa la woon loolu démb la tey soog a ñëw kon kan jàllu lii nga def nii yàlla nañu dem ba di ko mën ci barke Seydina Mohamed at mu jot ñu di ko def muy gën di yaatu te ñu fekkee ko tal ko ànd ak cee kattan ak wér ak wér la barke yonent bi man nag sama xol sedd na maay géwalu Welma yàlla na jàmm yàgg. waaw Vibe rajo ak. waaw euh, Minti Café ñoom ñoo ñu jàppale ci waaw waaw Vibe rajo tamit ñu ngi leen di gërëm. ñoom ñoo indi lépp ñoo def ñoo ñoo baas baas yi ñoo indi t presque ñoo indi lépp macha allah kon ñoom ni ngi leni di di len sante di len wax ni ñoom sen radio bi yàlla na dem ba nek ay télé télé parce que li ñu def ni bokku na ci yeg yeg bokku na ci bëgg doomu adama bokku na ci wone ni ay doomi Sénégal. wa yow tamit ya fi indi caaya. man it indi caaya man na ñëpp ku ku nek ak say fema man ta mom kuma xam-xam ne man la taa bu caaya man la ta géwëlu Welma damay baña def dara parce que ci wëru koor la nu neeng ah waa won ma tamit ñi ngi fii. wane ma wan ma ak wane ma lépp benn la. dama ni. ñi tamit ci télé bi. ñi nga xamante ni yéen a fi ñëw. muy waa wone ma. wane ma boo ko déggee <laughs> ci li wax waaye Amadou An bul dee waay <laughs> waaye gone gi kaay waay wane ma moom wane na lépp yéen xam ngeen ni bu dara lëndëm su dara lëndëm woon doo wax wane ma da tuddee seen télé baa ngeen tuddee ko nëbbu ma waaye xam nga ne wane ma moom mooy na lépp leer kon yéen tamit nii ngeen di wanee jàmm ñi yàlla na leen sunu borom wanee noonu ci barke yonent bi ndax yaakaar naa ni bokku ngeen ci li nga xamante ni yéen da ngeen a bokk ci ñi aar réew mi parce que lu waay di nëbb mu nar a gaañ ñi yéen a koy wane kon yéen it yàlla na yàlla def ci yéen jàmm ak salaam ak gudd fan ak weer wi nag weeru promotion la lu si waay def ci lu baax. jëf jël la tudd loo jëf moom ngay fayeeku kon yàlla nañu sunu borom bi may kàttan ak wér ak wérle ba ñu koy mën at mu jot ci barke Seydina Mohamed dem ba waa Welma bu ndogu lu jotatee ñii indi nag ñii indi ay saaku ceeb ñii indi ay keesu diwlin ñu mënal ko sunu bopp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu borom mën na ko yàlla na ko yàlla def xale yi jigéen yi yéen ñi amul ay borom kër yàlla na leen yàlla may ay borom kër góor ñi ñi amagul soxna yàlla na leen yàlla may ay soxna yu baax kan yàlla war ngeen ko mu takk jabar kan takkal jabar nag il est temps yaakaar naa ni rang bi seere na mais takkal soxna kan sonn nanu kan sonn nanu takkal